c'est ça. moo tax FMI ne euh, ah, suivi est-ce que nekk ñu sur sur ci surfinancement. de nos de de nos. ah d'accord ça c'est de nos nouvelles euh, <laughs> autorités là. mais mais il y a une situation qui est là. ban ah, situation man jéegi bi wax dama koy comprendre. Hmm. c'est que parce que mi ngi ci logique am et c'est normal. waaw hmm. hmm. mais dama la wax ne la yaa ngi si logique. daa day opposé wu. donc dama la ah, dama la koy nangul. waaw dama la koy nangul. ci logique boobu. et j'argumente. waaw maintenant si logique bi nga nekk. dama la koy nangul. absolument mais tamit ñun ci logique bi ñu nekk. nangul ñu ko. nangul ñu ko. ala kulli mooy logique bi mooy. jël ñii nii. deux mille vingt lañ leen di jugé. ñoom Baye ñoom Baye may Mayoro. waaw ñoom deux mille vingt cinq. que mais terewul koo waxtaanee. d' accord kon jeex na. dama ne la yéen yéen mën ngeen jox mais dama ne la ñun. Mm. déroulé ñun mën nañ taxaw ne. Mm-hmm. yéen at mii may nañ leen ko ba deux mille vingt cinq. déroulé. comme ni ma ko waxee budget budget bi bi ñu ko mettre dix pour cent du budget de l' état dañ koy consacré à l' agriculture bii waaw mais na waa xaaral xaaral rek ah, ah, bii bii xam nañ ne da ngeen xam nga ñoom dañu fekk budget mu fekk benn situation ñu ah. maintenir cap bi mais fi ñu leen di gën a xaaree ñun non non non waaw mais mais ñu ngi fay salaire waaw ñu am na lu ñuy fàtte a presque laissé quatre cent milliards ou trois cent milliards ici voilà waaw xam nga xam nga xam ñun kenn waxul eh? ministre des finances waaw Bachir la nu mu tudd sax muy Moustapha ñu ngi tegoon loi de finance bi ñu mujjee def avant ñi di ah, accéder au pouvoir Moustapha wax nga kàngam. Hmm. waaw mais kooku jàmbaar la kooku kenn waxatu ko. kooku ñëpp xam nañ ko. Mhm. kooku tout le monde ko euh, moom jàmbaar la kooku kenn waxatu ko. mais dañu am déficit Bachir. Mhm. non loolu moom. waaw dama nekk rek waaw dama nekk le déficit est presque à 10 pour cent. dama bëgg ñu wax ko loolu. loolu ñuy waxee ni ñu waxee li ñu labee. na nañu wax ne aussi fekk nañ fi ñii benn déficit budgétaire. de presque 8 pour cent 800. de huit mille huit cent milliards de huit cent et quelques milliards. on moom lañu fekk ñoom déficit. fekk fi bor aussi. bor bi ñaata la. treize mille non treize non li ma leen wax dañ ko bind. non le service de la dette. waaw le service de la dette dañ ko bind bor bi. c'est deux mille cent et quelque milliards deux mille. lañ ci fekk ñoom bor. service de la dette. ñu war ko fay. loolu moo am aussi. bu ñu yoral kan. waaw non. da ngay leeral da nga opté boru kan bor bu ñu bor moom bor bor kay bor déedéet globalement dafa am la dette intérieure parce que boo nee dañoo jël ñoom prêt léegi di nga ñëw boo ñëwee jëlal noonu rek jëlal noonu mooy bor bi rek loolu lañ ci fekk comme bor war na leer lii lañ ci fekk comme déficit maintenant ñun dañ fi bàyyil hmm. lu xamante nii ne bu ñu lebee on est ñu fay yaa ngi dugg intérieur det intérieur bi yaa ngi jaxase lu bokkul. fay yëpp laa la wax bor ci intérieur comme extérieur. dama ne sama waay économiste yi nañ ñëw dama xam nga aussi mën naa nangu nga ne xam yaa ngi wax BRT. Mhm. même bu ko ñëwee nangul woon ñun nangul nañ la ko. yaa ngi wax TER nangul nañ la ko wax nañ leen ba nga doog mais nañu bañ nangu nañ fekk nañ fi bor aussi. bañuñu ko. maintenant bor boobu nag ñii xaalis bi ñuy uti nii muy quatre cent et quelques milliards yi ñuy ut. mille milliards ak yeneen ñi ñuy ut nii c'est pour payer des dettes et normal c'est ah, yaa ngi def erreur. Omar je je suis pas d'accord yaa ngi indi erreur. ban erreur la erreur bi indi mooy. mooy lan yow soo taxawee ngeen dafa am une dette intérieure. waaw nga jël dette intérieure. non bor bi laa la wax d'une manière globale c'est deux mille et quelques milliards li ma la wax du dañ. Omar c'est ce que moom fi bàyyi. bon c'est waxal ba pare ma jël on a mais on peut emprunter mën nañu moom laa lay wax dama ne foofu laa bëgg jëm. la date des entreprises françaises c'est de c'est-à-dire ce qu'on attend partir de 2025. damay wax lu leer. damay wax à partir de 2025 ce qu'on attend de ce nouveau c'est à 150 000. non c'est-à-dire de régime actuel. c'est qu'à partir de qu'on puisse emprunter et investir. investir. mais ça. pas emprunter pour payer des dettes te fa lañ toll. Mhm. boo ko deful da ngay am problème actuellement nii. on est obligé. faw ñu lebi lañ te li ma lay wax nii. faw ñu lebi ñoo fay. non il faut ñu leb moo indi 450 yeneen dañuy leb ñoo fay. Mhm. maintenant ñun li ñuy xaar ci ñi mooy gap bi on est obligé cette cette cette cap là. on est obligé de maintenir ça pour que à partir de 2025. Mhm. qu'on puisse maintenant emprunter et faire des investissements. très bien. foofu la ñu Sénégal toll. très maintenant am na mhm. beneen mu bëgg wax conseil des ministres bi passé. waaw foofu nag man j'ai pas compris. mooy. parce que. Mhm. dafa am euh, malheureusement euh, taxi bi dama ko doon teel a génne ci conseil des ministres bi. c'est pour montrer que actuellement ci réew mi. Mhm. régime bi dimbali nañu dimbali boo xamante ni ñi fi nekk tey. ba léegi lépp lu mu mënti ñëw nga ne. yaa am fit Omar. si lan <laughs> ah, ngi ci bor bi. si lan si lan laa am. dimbale nañu dimbale boo xamante ne dama. Ah, mais yow xam nga mais jéegi jéegi xam nga fu mu jëm non mais yow nag mais yow dimbale nit ñi. mais vraiment aussi yow xamoo li may wax nga bëgg commencé di wax. waaw moo tax ma lay laaj. waaw mais d'accord mais da ngay déglu. leeral ko non da ngay déglu parce que aussi mënoo tere ba ñu bëgg a wax. waaw duñu ko wax. wax ko mais leeral ko dañ le président. Hmm. c'est-à-dire ce conseil des municipaux. waaw man daf ma daf ma jaaxal hmm. te ñii dimbali nañu dimbali ba xamante ni gis nga réew mi léegi. Hmm. ñu leen koy ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy remercier ah. hmm. ba léegi maintenant lépp lu ñu di wax wala luy jëf. Hmm. dina leer. si ñëpp nag dimbali ngeen ñu si. par rapport ak yoo xamante ni peut-être waxoon ngeen ko defu leen ko ñu comprendre. loo xamante ne waxoon nañ ko Macky sàll te amul. donc permettre ñu ñun senegal yi léegi ci lépp lu mu mën doon rek dañuy toog réfléchir mais dafa am lu ma jaaxal keroog ci conseil des ministres président ne dañ ne. selon le président de la République, de mettre en place une politique cohérente de maîtrise des prix de produits de grande consommation mm. avec le recours à court terme à l'option des appels d'offres. bul dugg ci appel d'offres. mu jaaxal ma man. poste yaa ngi. c'est-à-dire appel d'offres boobu laa xamul. ou est-ce que ñun tey bu ñu jënd ceeb. pour nos importateurs. on va procéder à des appels d'offres oui ou non. man loolu moo ma jaaxal man. mooy laaj bi ah. dama tiit man ci affaire boobu. parce que sunu importateur ñi nga xamante ni dañuy jëndal ceeb bu ñu demee ba léegi pour ñu jënd ceeb à l'extérieur war wala yeneen à l'extérieur on doit procéder à des appels d'offres man je me pour le secteur privé national. très bien moo loolu man jaaxal na te ma bëgg ñoom ñu expliquer. ñu édifier édifier ñu si lii si lan lan lañ bëgg a c'est important yow moom secteur privé euh, lu mu pour commerçant yi. ñu ngi ñëw jéegi pour ngeen rappeler pour commerçant yi. waaw millions yi nga xamante ne dañu leen tere ñu mën a génnee devise bu ëpp loolu. d'accord le président président Diomaye Faye président dimbali commerçant yi. léegi nag xaalis yi warta jaar aéroport aussi. Ah. non ma wax la yow sénégalais yi soo a. waaw mais ça c'est un autre débat on aura l'occasion d'y revenir dañuy dañuy dem on reste sur le sujet. 5 millions oui s'il vous plaît on reste sur le sujet Baye Mayoro. ñu ñëw ci ñu ñëw ci le gouvernement waaw Bachir information. pour préciser lu Omar doon wax. dans le mm. de la dette. Mm. aujourd'hui au Sénégal. Mm. il y a à peu de mille deux cents milliards sur la dette et 500 milliards sur les intérêts de la de 7000 milliards que le Sénégal est en train de payer. c'est clair loolu leer na alors bàyyi mu ngi nii parce que on a 1248 milliards prévus et 578. boo ko boolee c'est ça le service de la dette. non maintenant on parle plus de dette intérieure. alors c'est ça loolu leer na merci pour l'information encore une fois. alors euh, Baye on revient sur le sujet.